mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen wax ngeen continuer di abonné ci sunu chaîne bi ki di Sokana ginnaaw ba mu génnee kaso boobu ak léegi taxul mu yàgg trop moom naka daal di nañ koy arrêté waat beneen yoon bu bees Sokana naka daal di nañ koy fekk fële ca Parcelles Assainies ñu daal di koy arrêté muy koo xam ne ku ñu ràññee la ci jàpp ci xeex bi di ab patriote bu mag mag. pour wax lan lañ koy toppee nag ah ñu taaxeerlu rek ba am ci yeneen xebaar